di le ziar di kontaan trop ci ni ñu téro tay fi ci dëkk bu sel bi di Touba ñëwoon tey euh, président de la République Bassirou Diomaye Faye ak président Ousmane Sonko son premier ministre Nous yónni ñu fi tey pour ñu ñëw que d'abord situation magal bi c'est ndax lepp matna

Nous avons également pour une délégation de xam cabinet muy sama secrétaire général ak sama euh, ki nga secrétaire d'État qui est xam petite et moyenne entreprise Ibrahima et euh, ñi ngi ñoo xam ne ñoo la fait laaj wax naa légui gouverneur également makoy koy ak préfet sous préfet biñ ci waxtané gis nañu ne prix daw yi dafa ëppone liko waralon nak moy manque de préparation liko waralon moy stockage liko mankon moy planning ñun yëg yalla dafa def loolu moy suñu métier ndax dara su féké da nga bëgg mu réussir da nga koy waajal té lepp lo xamné soble la pomme de terre fruits et légumes. Nous devons les stocker, les commander, les congeler, les mettre dans des conditions qui permettent de les retirer et de les là, C'est ce que nous faisons. Je veux dire, pour les agents de régulation des marchés, nous avons des produits de telle ou telle taille, nous avons prix d'aube, d'herbe, de sacs pratiquement dans les 14 000, dans les 20 000, nous avons des prix 8 000, 8 500 lol nak la bëgg continuer tous les jours incha dañu fexé ba seet quantité yi soxla ak quantité fi ñëw di gëreum aussi monsieur le maire nim ñu téro di gëreum ñëpp ñi nga xamné mo ñoo ñu teeru tey euh, dinañu aussi seet li nga xamné moy produit yo xamné dañ koy wax non périssable lu melni ni diwlin lu melni ciép lu melni sucre xam ngeen ni temps yele ubbi won nañu marché sucre bi pour sucre baña manké Touba muy les DIPA lolu am ci xel ki xel bu rafet aussi bu rafet gis ne dina doy également ci bi pour euh, vraiment né Mexico. semaine bi au jour le jour Nous xam li fi xew waye euh, le maire euh, de suñu ci Touba dépassé na lolu ndax magal bo c'est 250 milliards mom moy équivalent

dans une zone industrielle il faut ko def 100 000 emplois 200 000 emplois 300 000 emplois C'est loolu day tax zone de consommation une zone de production Nous avons ñu fi bëgg a aussi mooy si li ñu wooyee agropole agropole nag suuf su yaatu lay doon le fay nous faisons nord, nous faisons agricole comme nous ñu koy defee ci réewu développé pomme de terre bi importées. def à Touba sont importer yi jóge Hollande yi importées. yi fenen euh ak euh, soble bi importer ak sont importées. jëlee ak tomate beeg yooyu yëpp ñun mu xam pour def ko à Touba ndax am ngeen souf sont ndax Touba souf moko wër importées. Euh, euh, yoonu Mbacké ak yoonu Linguère ak yoonu Musti autoroute bi importées. souf lo xamné presque dara kon lolu nekk aussi bëgg nañ ci waxtaan ak yéen mu nekk suñu projet nga xam dañu bëgg a def lu tollu 45 agropole ci biir Sénégal yëpp département bu nekk war a am su ko defee li ñu jéggaane su doon téeméer la day dem ba nekk juróom fukk ci ay feeg juróomi at mun na gën a wàññeekuwaat waaye li muy gën a def mooy joxe euh, justement xëyu ndaw yi loolu moo waroon tey ñu ñëw waxtaan ceeg yéen euh, pour ngeen joxuñ ci seen i xalaat jox seen ndigal waaye loolu mooy suñu yéene loolu mooy politique gouvernement bi commencé nañ ko fële en Casamance. def nañ ko déjà à Sandiara def nañ ko à Diamniadio euh, mais suñu yéene moy def ko fi à Touba ndax fi lañ ko gëna soxla parce que magal bi euh, c'est une priorité bo xamné gouvernement bi da koo gis incha allah le président la fi ci bopam na fi ñëwul bopam na ko waxal ni ko non lañ ko waxal waye ñun lool mo taxoon ñëw tay en tant que ndaw gouvernement bi di gëreum ñëpp di la santat ci sa ni nga ni sa taxawaay di la santaat ci aussi sa ouverture keroog bi mu fi ñëwé di inaugurer supermarché lekku fi yaa ma teeru également vraiment gën ñoo encourage gën ñoo euh, ñaaxaat ci liggéey bi suñu yéene nag dépasse na foofu incha allah suñu yàlla mayee wër wër gu yaram alors loolu yëpp bëgg nañ ko fee def maa ngi lay gërëm di la sant wasalaam jërëjëf. barakatu ministre commerce Serigne Gueye Diop ñu ngi lay dellu am nuyoo bu baax a baax ci turu Cheikh Mouhamadou taxa mi nga xam ne mooy kilifa mboolem ko yaakaar Serigne Touba ñu koy ñaara mu yàgg fi lool te ànd ak di nuyu mboolem délégation bi nga ànd bépp tàmbalee ko ci secrétaire d'État Ibrahima Thiam ak mboolem ñi nga àndal te ñu bàyyi ko ci sa ministère te ñëw fekk si fi ñi nga xam ne ñoo la tertu muy gouverneur de la région di Diourbel xam naa ñoo sonn nañ ndax fan yii bàggante bari na ñoom. waaye seen dëkk fi ak seen taxawaay moo tax ak préfet bu Mbàkke ñoom itam ba xaaju guddi duñ noppalu ndax màggat gay diise noonu ba ci sous préfet bu Ndaam ba ci sëriñ Abdoul Ahad Ka nga xam ne mooy maire dëkk bi te gàttandu leen bàyyiwuma kenn ak sama doom yu bopp yi nga àndan di sëriñ Moustapha ak suñ Kokki Diop ak bi ñu ci des ñëpp ak suñu Omar suñu amut gaynde faat mi nga xam ne magam suñu àlliyu ak moom mm, duñ ñaari jëmu kenn lañ ndax suñu Buxaari at mu jot daan gane si suñu Cheikh ci seen kër gi ñu dëkk fale ko suñu Cheikh daan dalal am na ci at moo xam ne siñ Cheikh ku xam na ne eh, am na nu ko yàlla bindoo bindoon ko amul dogo bi fi soxna ma bàyyi ko fekk ko fi waaye taxul mu dagg tukki ba daa bàyyi ba ay yitteem jeex mu ñëw waaye suñu Buxaari saa su ngan gi ma sànni agsi day bàyyi tukki bi dem ñëw ba noppi delluwaat kon ñoom samay doom lañ waaye sama lépp lañ kon ñi ngi bég bu baax di rawatina kàddu yi nga yëkkati ndax xëy na miinu li woon waaye xam nañ li nga doon ci kër gi liñ ci doon it du Mouhamadou Mountakha moo wax ma digg moo ma wax sa digg moom ba wax ma li ngeen bokk nga wëlbatiku jébbalu ci moom kon danga am ci ñoom ñaari cere nga door a ñëw nag tegal teewal fi sa kilifa gile fi yónni tàmbulee ci président de la république Bassirou Diomaye Faye ñu koy ñaanal moo premier ministre mi nga xam ne mooy jiite gouvernement bi yàlla suñu borom dimbali leen ba yéene yi ñu am ci réew mi ak yaakaar ji nit ñi am ci suñu borom mottali ko di rafetlu kàddu yi dégg nañ ko ndax li newoon ci suñum xel ñu bëggoon la ko wax daanaka jaar nga ci ba noppi ndax li nga wax daaw maa ngi fàttaliku ci commission màggal Tuubaa yi bi ñu def xayma yi yokk na lu bare bare bari boo la ko indi mooy li nga wax dafa produit yu moo seeroon ba nga xam la ci yokk bari woon na lool moo tax kon tey bu yàlla defee nga man sa yëgu moo ne wàññiku na ci maa ngi koy dóor dégg ci waaye kon bu wàññi ko lool tawfeex la njariñ la ci ñëpp ndax am nañu ko man waaye am na ñu néew doole ñoo xam ne lu njëg gi bari xawee seer dana metti ñoom ndax màggal gi moom ku ne danga nga koy njëkkanteeg sa morom ngir xam la ci suñ suñ Tuubaa woon ak pay gañ ciy séntu kon ñuy nuyu Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Serigne Moustapha Bachirou moom mi nga xam ne li ma ko ko waxee démb ci téléphone rek nee naa ko fépp foo teew rek danga fa siggal yoon wi ndax ci noonu lañ ko tàggate suñu Moussa Bachir xam ngeen ne kum noppi ci rek kenn du am lu mu xebe ci yow adduna ji dana mat àllaaxira ji mat pëseef bi mat jikko ji mat loolu nag lañ gis ci moom moo tax fu ñu mënta demit moo doon ñu fa sëkk ci teewaay yàlla def liggéey bi itam 2008 boo ko Cheikh Mouhamadou Lamine Baara Dieye teg ko ci sama loxo. boo booba Cheikh Mouhamadou Mountakha mooy jëwriñam moo boole moom ba nëgëni mu di ko sàmm lool ci positif ak taxawaay taxawaay boo xam ne la suñ Bassirou dénkoon waaye juróom ba rek lay def daa ko woon yéen damaa tolluwut ak yéen jamono ndax dafa am lu ma Serigne Touba digal ci biir yoon wi te yéen man ñaari kilifa laa am ñett yow nag bu àggee ci sa jamono da di bëri ay kilifa. te sa kilifa sañoo ko jubbanti wala wala nga ne ko defee nii waaye li ma leen di digal mooy na ngeen fexe bay doxee doxee boo xam ne ñëpp dañ leen ci roy noonu la bi ñu koy doxee ba na gën a sàmm ko kon ñu ngi koy ñaanal suñ borom dolli ak wér ñu yàgg ànd liggéey ci ndigalu sëriñ bi kon sëriñ Gueye li ma doon àggale ci waxtaan bi rek mooy loolu moo wax ci wàññi njëg yi mooy li gën a gaaw ci dimbale nit ñi ndax yëkkati xaalis di ko joxe mënta daj ñëpp te suñ saaliw di ci daa wax lu am solo daa wax ne dadaa wax ne nit kenn mënu ko jënd ndax saa soo ko jëndee nee na bu njëggee jeexee rek moomaat boppam daane joxe itam aw waar la wu yaatu wax ne kenn mënu ko bay ba ba jeexal ko ndax nee na firnde ji ji ci am mooy boo jugoon ne damay joxe nee danga xëy di joxe di joxe di joxe ba sonn nee boo gisee sa ginnaaw nag nga gis waaru bari nga xam ne bayugoo dara kon lépp solo ci dimbali nit ñi mooy fexe ba njëg yi wàññiku kon loolu dimbali nga ñëpp rawatina nag àdduna de dox jamono di soppi ko xëy na am fu leen nit ñi di séentu mooy lépp di leer ci ñoom te loolu adduna fa toll so ndax xëy na Sénégal tollu wutoon foofu waaye adduna toll foofu. mooy nit ñi moom li ci ëpp kumpale doon waaye bu lépp dee leer ci seen bopp rek jafe-jafe doom kon nag wàññi googu ngeen wàññi ba mu yëg ci nit ñi kon loolu day mel ni milliards yi yoon ko wàññi woon rek day mel ni moo gën di ko yëkkatu xaalis di ko tasaare ci nit ñi ndax boo ko tasaaree doo mën a matal te léegi ñëpp dañu ko yëgandoo kon loolu moom xalaat bu baax la boo xam ne ñu ngi leen ci soññ bu baax ba ca desit ñaar yi ngi fi tudd dama ne woon fu ma la gisaatee ndax xëy na biñ njëkkee gisante dafa xat te déggoon naa junj yi ñu ci junj ñu la ciy soññ bu baax te nga jot lu ko say kilifa ñu jàppale la ci mooy ay son industrie ci Touba loolu mooy li dëkk bi gën a soxla ndax Touba yaa rekk fi am xam li Serigne Touba waxoon ne wa risqu haccal atyabal xalaali fi l usri wal yusri ala tawali loolu waral dëkk kër dëkk la boo xam ne kër goo dugg danga lekk ku demoon boo mu leel loo lekk fu kër goo dugg lekk loolu yàlla ko fi def Sëriñ Tuubaa ko ñaan borom ba may ko kon taru ko nangu mukk ñi fi nekk ñoo koy jariñoo waaye nag ñaari képp nekk ci dëkk bi mooy ay commerçant ak i tukkikat kon day mel ne li tax commerce bi dox ba nëgë ni mooy tukki ñi tukki moodu moodu yi ñëw fi bari boo ko doon xool xëy na ñooy ëpp sax commerce bi mooy tax euh, économie du daanu waaye bu toon loolu kon day mel ne ñëpp dañuy jaay bu ñëpp di jaay kon kenn du jënd kon loolu mooy li xaw a tolloole diggante ba économie bi méttiwut waaye lii doxalub dëkk mooy industrie te ku am xalaat de di xalaat sëñ Abdou Lahad Ka mi li may wax seere la ci 2014 boo président Abdoulaye mooy bi mu jógee France di njëkkee ñëw ci réew mi waa Touba ñëw di ko teer dëkk bépp xumb lool boo ko génn ci mbedd yi man sax gé boobu woon sama kër waaye ko gis li génn ci dëkk bi ni mu bare sëñ Abdou Lahad Ka mii man de li xam ne jàngat naa ko ci dëkk bi mooy lii de bu amaatee dana doon lu kiimaane ndax li ma fa gis ci ndaw yu toll ci fukki at ak nangam ba ñaar fukki at te mu wóor ma ñi ci ëpp jàngu ñii liggéeyuñu loolu beneen dëkk bu mu amoon bu dul Touba ba tey kenn waxatu ko waaye nag dëkk bi ni ko Sëñ Touba sànce dëkk bu daaral la looloo waral kon saa soo xëyee da nga dégg nit ku faatu ndax dëkk bu ko gën a tuuti fuuf am na te xam nga ne police ak gendarmerie bu dee ci norme yi ngeen natt yéen mën nga ne boo yexee sax motu pour cent ci li mën a aar te tout lu néew nga dégg li mënta ñàkk kon son industrie yi dañ ko boole ci li gën a mën a tax a dimbale nit ñi. ndax nit ñi moom yëkkatef xaalis di leen ko jox àdduna da ko weesu la Cheikh Anta daa wax naan Sénégal danañ dem ba toll ci eh, fer aw nax waaye fi mu toll nii fa toll kon li leen mën a mooy fex ba nit ñi mën am liggéey loolu nag dara jiitu ci son industrie yi lu mu gën a yaatu ci dëkk bi ndax boo demee Dakar seen son industrie yu bokkutum fa te Dakar wax nañ ne tubaak ko ëpp population fi ne comme moo ëpp population nag kon loolu war ngeen def yitte ci. luñ ci war a defati ndakaaru rek du ma ne buñ ko buñ ko bàyyi ndax ndakaaru tam day màgg te mooy capital bi waaye na ngeen xam ne kon fu ndakaaru jàlle Touba ci war a topp rawatina nag Touba ñu am at yu bari yoo xam ne ba na gën amaguñ seen industrie boo ko suñ saylu di xalaat yàgg na ba gën a sottiwut kon loolu na bokk ci yitte yi ci jiitu ba ca des mooy wàllu mbay bi nga wax mbay ku ko tudd ci senegal te waxal sa dëgg rek nga xam ne da ngay att ngir yàlla. xam nga ne li ëpp ci baykat yi ay murid lañ kon ku bëgg a defar mbay mi yomb naa xam lool ñi nga xam ne ay baykat lañ ñooña ci seen moyens bopp la ñuy demee di bay kon ñooñu ku leen dimbale ci ay matériel jàppale leen ci te loolu yéen état man ngeen koo xam bu ngeen ko defee diir bu gàtt fee ñaari at ñett réew mi mën naa bañ a jéggaati ab jég mën a jég jéggaani ab dund kon ñaar moom dañ leen ci soñu ngir ngeen xam ne defal leen siñ bi lu ko ci dëkk bi ndax booy doxantu sax ci fajar rawat na guddi boo sëlmalee gee doon tàll sa tànkee wala nga romb ci mbedd yi nga gis nit ñi ni ñu toogee ci buntu kër yi nga xam ne amuñu xëy loolu loolu itam lu lu diis ku am xalaat di xalaat rek dana ko day metti ci gi metti na kon loolu dañ la ci soññ te jàpp nañ ne niñ déggee sa xam-xam ak lañ xam def nga ko ci te nekkoo ci nguur jàpp naa ne bu dee bu demee ba nekk ci see loxo bu la ci jàppale mën nga ciy def yu bëri bëri kon daal loolu mooy li ëpp ci kàddu yi nga xam ne moom lañ doon nañ la ko soññ ndax wax nañ wax nañ ma ci ci ci foo nekkut ni ma bi nga nekk Côte d'Ivoire sax bañ demee ba nga ba nga bëgg a bàyyi ñoom taxaw nañ temm ci bëgg laa téye ngir sa CV loolu nag kon def ko sam réew mu gan rawatina tuubaa gii nga def ko fii ngir Touba mooy xolub Sénégal mooy xolub Sénégal ci bind waaye mooy xolub Sénégal ci fànn yëpp boo amee jàmm fépp am jàmm mooy moteur bi nga xam ne bu doxee lépp dox lépp dox waaye lu fa gàllankoor rek ñëpp ko yëgandoo kon ñu ngi la ci soññ bu baax a baax rawatina euh, li ma waxoon rek ndax fii moom xam nga ñu cëpp jànguñ français xëy na école daara alxuraan dañ jàng wala école arab te ku ci jàng te amoo formation yi doo a liggéey kon formation ak son industrie ak noo ko tuddee te mooy ci wàllum mbay mi ñett yooyu daal xam naa ne bokk na ci li nga xam boo ko defee defal ngeen ñëpp te Cheikh Mouhamadou Mountakha foofu la nekk moom la kilifaam ya nekkoon rek fa la nekk mooy lépp loo jëmee ci taalibe Sëriñ Tuubaa yi mu yëkkati cant ak ngërëm jëme ko ci yow ndax Sëriñ Tuubaa dañoo tere jàmbat ndax daa waxoon ne. duma yekete sama loxo diko talal kudur yàlla maddu yadi li xayri sil jëlaali wax na ko fen amna fu waxane maddu yadi li khairihi indi junun wa khadali khair al halal wal futun kon talal loxo kudur dul sa yàlla sin si bilaa danaa wax naan mooy mbañum yoon wi kon nag yéen ñi nga xamne am ngeen tawféex yi yàlla suñu bam tegg leen ci bop réew mi te sayidul xaw mi kon lolu aw sas la wu sas wi nag néew mu sotti tey ak suba ndax ko xam adduna li muy doxee fu mu mën a doon bu doon bitim réew wala ñu yëkkatoon milliards yi ngeen soxla yëpp jox leen itam bala ngeen def itit bay def liggéey ba faaw mu diire waaye nag li am solo rek mooy nga am lu leer ci sax xar kanam nga jug jëm ci bu àndee ko dogoor yàlla dara ci dimbale ndax boo xoolee Sénégal réew yi mu amadoon indépendance ña ci ëpp moo leen jiite woon moo leen jiite woon waaye tey réew yooyu jiit nañu Sénégal lu bëree bëri bëri. loolu na kon jàpp naa ne euh, ñaari président yi fi mujj def nañ ci liggéey muy président Abdoulaye Wade ña ci jekk sa ku ci def nga la nga man waaye Abdoulaye Wade nag moo révolutionné Sénégal moomu am na genn kilifa gu ma waxoon ne ma li ñu jàngaloon enam de bokkut ak li indi ci réew mi jàpp nañ loolu mënta nag ba ba teg raay yoon wi ci raay bi ba kenn mënatu ko wàcc ba mag Macky Sall ñëwee topp ci yoon woowu yéen nag bokk nañ ci seen liggéey li ci ëpp solo mooy ngeen fexe ba li ñuy liggéey ci réew mi des ci biir réew mi ndax lool tam mooy tax mu amal njëriñ réew mi ndax lu projet yi bari bari bu fekkee lépp dafa génnaat réew mi du bari njëriñ wala waa réew mi duñ ko yëg kon loolu rek lañ ci amaat ci xalaat loo xam ne danañ ko wax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.